وارفعنا بحق سرك رفيق فلا يرى فينا ولا منا ودي قد نكون غيظ كل بلد وأمنه متنا على تشديقنا باستفائه فإنا وذول أسواخ يخيا بدائه يشوق علينا عيش دون لقائه إذا أعوذ بالله من السميع الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم mbokki jullit yi mbokki tarixatul xaadiriya ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu sang yi sayyiduna muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dañu ciy teg rek suñuy ñaari waaju di ziyaar tous les xalifa généraux di nuyu suñu xalifatul am di tarixatul xaadiriya cheikh saad bu lu cheikh mohamed taqila doomu cheikh doomu cheikh al xalifa doomu cheikh na cheikh saad bu waaye nag di beral nuyoo sama papa sama buntu ci kër Cheikh na Cheikh Saad bu Cheikh Saad bu wuldu Cheikh Mouhamed Taxila doomu Cheikh Hamdul Maalum ak njabootu waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu yëpp. tey nag ñu ngi fii ci émission bu mag bi nga xamante ne mooy 100 pour cent Khairoudine macha allah ñu ñëwaat fii ci géejowaay comme ni ñu ko daan defee ci yeneen émission yi rek ñu ngi fii ci plateau en direct Al Moukhtar TV ma fas yéene jàkkaarloog macha allah xale bu nga xamante ne tarixatul xaadiriya naam am nañu ko xam am nañu ko xamagul mais mu ngi ci yoon bi. soxna Khady Al Mokhtar TV mu ngi lay nuyu. waa ñoo ngi lay fay bu baax soxna Mama Lo di leen ziar di leen nuyu di nuyu Ahlul Bayt Rasul di nuyu suñu xalifa Cheikh Déthialaw Seck muy Cheikh Makhtar Seck yàlla da fi yàlla bàyyi mu yàgg loolu te wér di nuyu waa daayira Cheikh calaw ñëpp di nuyu waa tabalana bi ñu ma àndal di leen nuyu waa yéen waa Al Mokhtar TV di leen nuyu bu baax macha allah.

soxna xadi kontaan nañ bu baax a baax a baax lii mooy wane ne rek euh, saxaar bu jubee gaar day konde yéen ñi doon laajte ki nga xamante ne mooy soxna xadi Thioune bu Cheikh Dieng Thialaw ñi ko xamul woon di ma ko laaj chaque jour tey ma ñëwaat fi ci géejawaay seesi ko macha allah kon dañuy daal di rek euh, dugg ci li nga li nga xam ne émission bi waxtaane ko soxna xadi kan moo la jëkk a jox micro nga way Khayroudine waaw man bi may njëkkatee micro euh, ndeysaan bàyyi naan ba yàlla ko yàlla yërëm moom ku ne xam ne ko si waa kër Cheikh Déthié Lô Seck doomam yi am ko ci ay woon daayira ma ñëw nag Xayruddin bi woy ba pare rek ñu may tooñ ne ma soxna Xadi wayal rek ma yëkkati woy xayrul wara noonu laa njëkkati micro way est-ce que mu fàttali nga ci dara ak euh, jour bi nga njëkkee waaye nan la demee woon ak yow. xaw ma lan la damaa way noonu rek euh, aw ma ci benn problème de macha allah moo pare nag ñoom dañoo jaaxle sax ndax luñ ma mës gis ma woy noonu téye micro bi way dëgg la parce que damay dégg des fois lu ci ëpp sax am na ñuy wax ni joor bu wakkaam moo la jàngal way parce que li ngeen di ànd dafa bëri torop noonu joor bi ñu xamante man ak moom matu sax at euh, Cheikh Vieux Diop mi toog moom a booleeg moom bi xayma pikin bi daaw passé ci lay doog xamante ak joor wakkaam macha allah mu nit ku baax moom tamit. ñu gis ne tamit say génn ci li nga xamante ne mooy tant yu mag yi bariwul yow mm. yaa préféré toog respecté ci sa coin pour am loo ñu préparé wala nan la demee noonu damay génn sax des fois mais xam nga tamit mënoo tey ji fun la yëgal nga dem la yëgalu nga dem bu ñu yëgalee nag amul benn yitte dañ cay dem mais nag bu ñu yëgalu dañuy toog suñu kër mais des fois dañuy gis ne way xatu xeru din yi macha allah dañ leen di gis ci tante yu bari te yow taxul ñu ràññee la ci lool waaw parce que soxna xadi tamit nekkul wayi la jël def ko métier man dama am sama liggéey damay liggéey de sa fait tout le temps lay am disponibilité pour man xayru tante bu ne ma dem fa sama ah. liggéey tam daf may teunk des fois kon nekul ne rek way bi rek ci ngay yëngu moy sa metti non non yëngu ma ci masha allah beneen tamit boy yëngu wa macha allah macha allah tabarakallah masha allah dañuy dem rek nga daal di wat li nga xamante moy mooy mbokki téléspectateurs yi ñu siiw fasalli min ismaa وإبراهيم خليل الله فسلم إسماعيل وإبراهيم خليل الله كوكو يخرج يا لبي فصلي منا إسماعيلنا وإبراهيم wa tabarakallah macha allah soxna Xadi yal na yàlla wéral baat bi kontaan nañ loolu allah xamoon nañ ne bu ñu ñëwee fii ci géejawaay sa la dinañ fi jëlee mbégte mu rëy macha allah soxna Xadi bëggoon nañu xam durant que carrière bi nga dund nga nekk ndaw di nekk ci yoon bu muy tagg Seydina Muhammad nga teel a ñàkk say waajur ndax loolu mën nga ñu ci expliquer rek tuuti. waaw macha allah sama ñaari waajur yal na leen gërëm leen xaarale man nak manam ni ma ko waxee rek bima ci duggé sax yagul gunah, na yàggul ndax 2016 la commencé tag yon ali salatu wasalaam bima ko ñëk def tam wax naa la mais depuis jour bobu la bokku Cheikh de sek di ñëw daayira di tag yonent bi euh, defuma dara nak ndax sama mam asumba yalla nako yalla yeeram yërëm ko nekkoon jappalé ma tamit man dama bëgg ma sha allah rabbuna papa nar mbay momit jappalé lol lol lol deug yalla moo ma ci gën encouragé tey jii <clears throat> di ci sant yàlla daal alhamdulilah. à part kooku nga xamante ne tamit mooy Papa Naar macha allah. Mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla xare àjjana bi jaay nabi Mustafa alayhi salaatu wasalaam nga ni moo nekkoon ki nga xamante ne moom nga dese woon mu la doon jàngal li nga xamante ne di la favoriser ci tagg yonent bi ngay def tey jii nga toog ak première émission bi Al Moukhtar TV ñëwee seet si la fii mm-hmm. pour invité la jàkkaarlook yow nga fas yéene ñoo wax rek yoon bi nga xamante ne moom nga dëgmal tamit fekkewu ko loolu lan la waaw yoon bi bëggoon naa mu fekkee ko Papa Naar ndax boo dégloo sama single bi maa ngi ko ciy woy ndax xam naa ne bu ko fekkee woon ku dina ci kontaan lool macha allah mais nag ñoom ñu nekk foofu ñoom ñuy gis li xew fii ñun ñoo xamul la foofu te macha allah duñ ko fàtte di ñaanal saa yi ñu jullee xam naa ne xolam ba sedd na lool ci ñun macha allah di wax tamit euh, Cheikh part Thiam bu Ndar ñun ñi xayru din bi moo ñu jël di ñu jàngal te duñ ko fay dërëm te ku ne xam ne Ndar ak Ndakaaru daa yi mais macha allah yéene rek ak doon taalibe ak bëgg yonent bi muy tàgg alayhi salaatu wasalaam moo tax mu ñu jàppale ñu ñun ñii lu ñu man tey jii ba toog fii nii gëm naa ne moom moo ngi ci moom wala moom la bokk macha allah rabb na Soxna Xadi ndax am nga li nga xamante ne mooy staff wala génnee nga album wala single. waaw génne naa single mooy bisaati rabbina izzati sama single boobu rek moom laa génn di ñaan yàlla nag ma ko waxee woon rek di way yeneen di way yeneen suñu waa daayira ngi nii waa tabala na nabee ngi nii ñoom Cheikh Dieye Diop ñoom Cheikh na Diagne Omar Touré SCC ins ñoom ñëpp ñoo ngi la ñu waa daayira suñu président Aline bay may sa tonton Abdou Gueye tonton euh, suñu président tonton Gueye Mortala Gueye macha allah itam di len ñaanal la ñu yag fi te lool mën na ne dal sama estafa gogu sunu xadi kon da ngay tek fofu sa baram rek ñu dal di delu bëggalaat ñi nga xamantene moy mbokk mbokki téléspectateur yi ñu siiw. incha allahu rabbuna. ya rasulillah khairul wara rugaage yow ya kontaan nañu torop macha allah way neex na torop te ku dégg li tamit xam ne li ñu woote woon rek lañ fi fekk muy 100 pour cent xayru dini may nuyu bu baax a baax di nuyu sama cameraman yu ñaaw lii ci ginnaaw waaye duma fàtte tamit macha allah sama sang sama xarit kenn ci man soxna mama mintu cheikh sad, ba doom cheikh mohammed takila nga xamante ne nee naa du jug ci man di def ci man li nga xamante ne mooy teraanga jël li nga xamante ne mooy jàllaa bu rafet bi rek jox ma ko nga euh, fële ca Thiès képp nga xamante ne nga ci jàllaa bi rek da ngay daal di jaar rési dinañ jox numéro nga daal di koy contacter bëri na tamit ay produits yu jógee soxna Mama ngi ciy yëngatu yéen xale yu jigéen yi képp ku ci bëgg a belli rek baa nga jonga ma dawal seddi soxna Mama Mintou Cheikh Sadou doomu soxna Khady bëggoon naa nga wax ju ci li nga xamante ne sa diggante ak Cheikh Makhtar Seck wala naam sa diggante ak waa kër Cheikh Dethialaw Seck ndax tout le temps rek bu ñu waxee dañ naan soxna Khady Thioune bu Cheikh Dethialaw Seck c'est une longue histoire kon donc bëgg nañ nga xuusal ñu ci tuuti. li nga ma laaj moom dama ciy sawar parce que histoire cheikh déthia law ak man mën naa ne lu yàgg la ndax cheikh déthia law sekk moo woon sama sama maam cheikh déthia law mbaay cheikhal ko def ko muy tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba tey jii ñun sote ñu tey ku ci taxaw di tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam mën naa ne danga kaa doon kon histoire boobu moom maanaam du tey loolu yàgg na lool macha allah cheikh maxta suñu xalifa di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi Masya allah lool kali nah, eh, ya xadi kay li allah ndax liñ naan lu waay doon mu dëgër doona wóor parce que loo xam da nga judd fekk say maam di ko def ah boo màggee di ko def loolu yaakaar naa ne wàññiwul dara mbokki talibe xaadir yi ñu leen di yëgal bés bu rëy bés bu màgg bi nga xamante ne mooy 11 mars di amee fële ca talimaam jaar jàmm gën ki nga xamante ne mooy papa si taaliba Cheikh Te di amal guddi gu rëy guddi Seydouna Mohamed di sargal ki nga xamante ne mooy seen wasila bu tedd boobu di maam Cheikh Te Thialaw ñu ngi ciy woo képp kuy mbokk taaliba rek le 11 mars fële ca jàmm gën fa nga xam ne mooy tali jaaro duñu fàtte tamit kenn ci ñun macha allah di suñu grand frère suñu lépp bokk ci kër gi ci ëttu Al Moukhtar TV muy Cheikh Maysa Ndaw moom tamit di amal guddi gu rëy guddi gu màgg guddi gi nga xam ne da ciy sargal wasilaam bu tedd boobu di cheikh maxtaar rek borom yàlla nee na ñu ci woo mbokki taalibe yëpp di ci woo surafaaw yi di ci woo nabiye yi le onze mars incha allah rabbi ca fas mbaaw soxna xat dañuy dem daal di nga daal di béggalaat rek li nga xam ne mbokk téléspectateur yi ñu bëggoon xam rek euh, li nga xamante ne mooy suñu mbokk nabiyen yi ak euh, tagg Seydouna Mohamed fi mu toll nii ak milieu bi des fois ñu gis yoo xamante ne si way di tagg Seydouna Mohamed baaxoowu ko maanaam ci comportement wala ci li nga xamante ne mooy way ndax Cheikh na def fi bàyyi ay xasida te xasida yooyu fi suñu mag yu baax yi bàyyi war nañ ci mën a sukkandiku di ko wéyal di ko jàng macha allah dañu gis ne folklore bi dafa bëri trop yow loolu lan nga ko jàngate waaw soxna mama mooy comme li ma la wax rek bu ñu jiitalee way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni moo waral coow li buñ ko jiitalee rek dinañ xool bu baax nañuy def nañuy comporté woo ni nga ko waxee tamit mag ñi dañu fay bind teg teguñu ko fi nag pour ñu teg koo noonu rek ko war di jàng di ko xam xamle des fois nit yëkkati di ñu ne waa ku bind li loolu tamit da ciy am solo loolu macha allah rabbuna folklore ga gaa dana neex loolu waye tamit yonent bi dal dama japp ni ant ak folklore sallallahu alaihi wasallam sallam soxna Xadi ñu jup ci li nga xamantene moy shahru ramadan di weeru koor waye bu ñu nee weeru koor nag suñu xel yépp day daal dem ci mam Cheikh na Cheikh Saadu Abi ñu fas andono rek dem ziaré ji ko nim ziyaar lool nan ngeen koy waaje yeen wa ka Cheikh de Jalaw sek waaw ñun bu ñu ci koor gi rek ni nga way ka di waxé rek suñu xasse dugg koor rek xel yëpp nimsaar lay dem sha allah rabbuna kontaan rek fas yéene waajal yoon nimsaat bi ànd ci contentement ak bég xam nga sa sëriñ di ko ziyaar benn yoon ci at bi ak at yi jour yi nu mu bare mais benn yoon boobu de nga mën a dem ziyaar ko loolu moom dëgg yàlla contentement ak bégte lu ñu mën def ko ci nag anan bu mu gën a seetlee macha allah rabbuna kon soxna Khady dañuy dem daal di xoole rek li nga xamante ne mooy single bu bees bi nga génne. waaw incha allah. mbokki téléspectateurs yi doon suivre seen télévision bu mag bi di Al Mokhtar TV ngeen ñu àndoon ak yéen ci li nga xamante ne mooy plateau 100 pour cent Khairoudine bi ñëwoon fii ci Géejawaay kon lu neex du doy dañu day ko daal di dog rek ba beneen yoon ci yeneen numéro incha allahu rabbi di ziar bu baax a baax a baax di ndokkeel macha allah ñu ñu fekk fii di waa Khairoudine bi ak euh, képp ku yeewoo rek fii ci Géejawaay di nuyu bu baax suñu waa kër di beral loxo nuyoo sama yaay mama Fatou di ko wax ni dundal weral muccel ci barke Cheikh na Cheikh Sadbou di wax ne rek euh, ñoo ngi woon fii ak yéen si Al Moukhtar bi plateau bu mag bi 100 pour cent din dañuy daal di tàggatoo rek ba beneen yoon incha allahu rabbi di ziar bu baax a baax a baax di ndokkee di ñaanal réew mi jàmm di ñaanal Sénégal jàmm di ñaan tarixatul xaadiriya di leen ñaanal jàmm bu baax ñu dugg ci weeru koor weeg jàmm ak salaam daal di ziyaare ji rek ki nga xamante ne mooy Cheikh na Cheikh Saad Abi dem Nimjaat ak jàmm ñëwaat ak jàmm di nuyu nag bu baax a baax a baax toute l'équipe bi nga xamante ne mooy waa Al Moukhtar TV dooree ko ci le grand PDG di Khalifa Mboup di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér macha allah di ko ñaanal lu kawe njortam kon soxna Khady dangay daal di tàggatoo ak mbokki téléspectateur yi rek ba beneen numéro ci émission bu mag bi di 100 pour cent Xayrudin waaw di leen sant di leen gërëm di sant tarix alxadriya bi ñëpp di gërëm tamit sama awukat yi waa daayira Cheikh de Jalaw soxna Ayda Gaye soxna Aji Faatu soxna Ndey Seck may mën a Seck say mbaay fatou mo ñam soxna nagay may mati aram fatou mo ñepp mohammed mbay sama rak ji machallah le nabi yonte dik su ma ko ziar bu wax wax sama teugat cheikh bi diop cheikh na diagne du len faté yeen wa al mukhtar tv may len ziar jor wakam fatou mo la mention spéciale cheikh pape diam encore une fois kok amul fayam ma sha allah ya, nañ ko yalla fayal wa addi ziar bu bax nak mamadou diop ma ñu di leen fatale rek li nga xamanteni moy le 11 mars feulé ci fi nga xamante ne mooy yëmbal waa ak Cheikh Al Baxayda Wuldu Chibi ko amal ñu ngi ci woo képp kuy wax rek ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad ci woo tarixatul xaadiriya ñëpp surafaaw yi nab yi tàggkat yonent ñëpp ñu ngi leen di woo bàyyiwuñ kenn le onze vous donne rendez kon ci yëmbal incha allahu rabbi